بسم الله يكفيني أقال يا الله سبي بقاء بن بفيق يا الله دك بيد ما يوم بات نك شجبون سرين بدفن فلوم الجرم يات وحنا نبما فاجي فيكم فكان كوي ساكو الك ما نام فيكم فكان كوي ساكو غرمو يالا دفنا فلوم الجرم يات dir bobu yépp ma fa ci tumuranke di jihad ak sama bakan ak sakku ngërëmul yalla deyalé na fa ak sama borom xéti deyalé yo xamné ne wuru ci tek bet ken ndax ay mbot la yo xamné ne wuru ko gis sëriñ bi wax na yit né ci dëkk bobu suñ borom defal na ma fa ay xéewal yu bari yëkëti fa sama daraja ba ma nekk dëggi abdullahi ak dëgg-dëgg xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nee na defal na ma fi ci ay may ki xéwal yoo xam ne it kenn du ko weddi xanaa ku texee di ak koo xam ne amul benn cër ci yàlla kenn du ko weddi lu dul ku waru wala ku rëy wala ku soxor wala ku iñaan wala boroom xol yu taq yi ci juróomi at yi sëriñ bi def ci dëkk bi it wax na ne ci la mujj melni ab jant ngir may yu bari yi ko suñu borom may ak yëkëti gu mag yëkëti dara darajaam ci dëkk bi di Mayumba sëriñ bi wax na ne ñëw na ba ci tefes gi mu jàkkaarloo ak géej gi di waxante ak moom ne ko yow géejug Mayumba na nga ma seere na nga seere ne kat man jaamub yàlla képp la suñ borom moom yi nga xam muy jéggale ay bàkkaar na nga seere ne it liggéeykatu Moustapha sallallahu alayhi wa sallam la nga seere it ne man dey képp kuy bokkaale yàlla defuma moom nenn sequma ak moom dara na nga seere ne xaritub yàlla la dib soppeem na nga seere it ne xaritub yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam te dib soppeem moom moom mi nga xam ne ci dara jaam ci la ma suñ boroom defalee xéewal yu bari maa ngi ñaan suñ borom yokk koy xéewal te yokk koy daraja na nga seere it sama cant gu mag jëme ko ci yàlla suñ borom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne ci barkeem ci la ma suñ borom musale ci seytaane ak mboolem ku mu àndal daal di mel ne ku jàkkaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow gën gi mbindeef tagala de moy sama taxé aduna ak alakhirah té ci tagala ci lama suñu borom di musalé ci sétané sa bu juggé ngir jëm ci man nako ko la tag wo xamné suñu borom ci lama mu ci mbolam noni nako ci sa daraja yo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sa barké ci lama suñu borom musalé ci mbolam ñi nga xamné dañoo ak mbolam ñi nga xamné ay ay kat lañu Dari di mel ni ku wëlbatikuwaat di waxaat ak géej gi ne ko yow géejug maa yomba kenn lal yàlla te bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy wax ne yàlla ñett la suñ borom day kawe na lool fu ñu jàppee ne ñett la kenn la te amul ñaar bay am ñett saa boo demee bay duusu nanga ko def ngir ragal yàlla te it nag foo na nga ma seereel ne man kat jaamu bi yàlla la maayomba googu nag bi fa sëriñ bi jógee ci lañ ko yóbbu ci beneen dëkk bu ñuy wax Lambaréné mu def fa ñaari at fa la jóge ñëw Sénégal sëriñ bi wax na ne dëkk boobu de bi ma fay dem yóbbaale naa fa ci ab coono ak mettit woo xam ne lu dul ruug yi génn ci yaram gënu koo metti ba fa sëriñ bi defee ñaari at nag ci la fa jóge ñibbi si Sénégal indaale ay may indaale ay xéewal indaale tawféex goo xam ne ba tey jii jullit ñaa ngi ci jariñu yàlla nañu ko suñu borom fayal àdduna ak àllaaxira wabtali min lan faa xamas alate salaat ko suk riyaaya wa